bëggee di jot ci vidéo yu am njariñ yi bàyyikoo fii ci sama diine tv da ngay ñëw bés fii ñu bind sabone soo noppee nga daal di cloche bi mooy waral benn njariñ du la raw àddina li ci des mu jeex àddina li ci des mu jeex ah moo ëpp li dem de moo ëpp li dem de moo gën néew moo gën néew li dem li dem bés bu nekk ne bés bu nekk jant bi jant bi 4,6 4,6 wala 4 millions wala 4 4,6 4,6 4,6 millions 4,6 millions ci tooke ci tooke taal par seconde par seconde seconde bu nekk seconde bu nekk essence bi muy taal essence bi muy taal 4,6 4,6 4,6 millions 4,6 millions lay taal lay taal ci tooke ci tooke bu yàggee mu jeex te jant bi te jant na de de te li yonent bi waxoon. te nee te li yonent bi waxoon. ñëw na ne ñëw na de. mu jug jamono mu jub jamono. mu ne njëg yëpp dafay kawe mu ne dafay kawe. loo doon jëndee dërëm. loo doon dërëm. fukki dërëm. est nee est-ce que loolu amul. am na am na. bu tabaski dikkee bu tabaski dikkee. yu wii de kees yëpp yu jënd ay xar jënd ay xar. jox ko sëriñ si jox si sëriñ si. sëriñ si ñàkkuñu sëriñ si ñàkkuñu. wala jox ko jongo wala jox ko jox ko jongo may bu tabaski paase bu tabaski paase ñu yokk ceeb ñu yokk ceeb yokk diw yokk diw ba kees bi feesaat ba kees bi feesaat xar yi ñu yóbbu xar yëpp ñu wiide ay billet def ko ay billet ay militant ay militant di wër kaaba gi di wër kaaba gi labbayka yàlla du bu lewul la xaalis bu lewul la bi ci ñun suukar si ñuy joxe suukar si ñuy joxe yëpp ci yéen lañ ko jëlee yëpp ci yéen lañ ko jëlee di dolleeku rek ndax du ngeen xelu nee ndax du ngeen xelu bu campagne dikkee bu campagne dikkee solo leen tise solo leen tise ay casque ay casque ngeen di tàccu ngeen di tàccu doo falu doo falu doo am ku falu doo am ku falu bu campagne jeexee campagne jeexee dootoo gisati dootoo gisati kenn campagne la seydina mohammed campagne la seydina mohammed akhiru zaman akhiru zaman jigéen yi jigéen yi dung ci biti dung ci biti seetal xale yi jigéen seetal xale yi jigéen ñëpp ñu ngi mel ay uru ay ñu ngi mel ay uru ay ni suba suba koo dajee ci tali bi koo dajee ci tali bi. dënn bi yëpp mu ngi ci biir dënn bi yëpp mu ngi ci biir. waaye siraat. waaye siraat. képp kuy xiirtal góor ñi képp kuy xiirtal góor yi. ci sa ween ci sa ween. dañ ciy aj ay lonk dañ ciy aj ay lonk. comme ni buuse di ajee comme ni buuse di aj. ndawal ndawal ci lonk yi ci lonk yi. jigéen yi nga xam ne. jigéen yi nga xam ne. ñooy yëngal seen i weer ñooy yëngal seen i weer. di yàq diine góor yi di yàq diine góor yi. yàlla yàlla fa lay def lonk. fa lay def lonk aj ci safar aj ci safar. yàlla nañ ci yàlla sang bi nee na yàlla nañ ci yàlla mosal. théâtre yi ngeen di xool. théâtre yi ngeen di xool. ñii duñ ay référence ñii duñ ay référence. col yu bon yi col yu bon yi. kawar yi kawar yi. ay cheveux ay cheveux ay cheveux naka la. waaw kawar yooyu yëpp. kawar yooyu yëpp. ay kawaru nit ñu dee la. ay kawaru nit ñi dee la. ay kawaru. ay kawaru. jigéen ñi nekkoon ci aada. jigéen ñi nekkoon ci aada. ba seen aada jeex ba ñu xuuf seen kawar ñu mu sëñ bi nee na mu leeral dara. du ñàkk jom du day leeral. ci lislaam ci lislaam. bu jigéen wasine bu jigéen wasine. dañ koy ber dañ koy ber. ba wasin bàyyi ba balaa muy dugg néegu balaa muy dugg néegi borom këram. maa mu ngi jéggalu. lislaam lislaam daf ko digal na yeesal na yeesalaat. poqotaanam na yeesal na yeesal. naqam naqam. waaw waaw. boo demee Inde. boo demee Inde. am na ñu tuddee ay hindus. am na ñu ay hindus. ñoom bu ñu dee. ñoom bu ñu dee. duñ leen suul duñ leen suul. dañ leen di lakk dañ leen di lakk. comme madame Indira Gandhi comme madame Indira Gandhi. ñoom Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi. ñoom Nehru Nehru. ñoom du ñu suul ñoom du ñu suul. dañuy taal seen taal seen néew. comme ni ñu taalee comme ni ñu taalee. Fidel Castro Fidel doom bi jël doom def ko ci ndab def ko ci ndab. ñooñu ku ci dee. mais ñooñu ku ci dee. duñ leen lakkaale ak seen kawar dañ koy dagg dañ koy dagg. sànni ko ci mbalit sànni ko ci mbalit bi. jigéen bu wasin jigéen bu wasin. ba bugg a dugg ba bugg a dugg. néegu jëkkëram néegu jëkkëram. dafay wat dafay wat. boqataanam boqataanam. wat wat. naqam naqam. Eh, wàññi kawaram wàññi kawaram. léegi am ñu koy for am ñu koy for. di ko raxas moom la ñuy jaay si fii ay cheveux naturels tax man damay xëy. mais moo tax moom dafay xëy. ba jant bi sow ba bi sow. ñi may ànd ay xale yu jigéen may ànd ay yu jigéen rek. day daanu rab day daanu rab mooy fu muy fajee loolu. Ah? Mhm. moo tax. ne moo tax ci mag ci mag tuuti rek. mu am cancer ci ween ñu dagg weenam ñu dagg weenam. cancer bi juddaat cancer bi juddaat. mu dee. léegi ay xale rek ñooy dee. ay xale rek ñooy dee. boo demee ci cimetière yi. boo demee ci cimetière yi. yu ndaw rek bàmmeel yu gis ma gis bàmmeelu mag. déedéet déedéet. ñii cancer ñii cancer. cancer col. cancer col. ñii kyste. ñii kyste. ñii fibrome ñii fibrome. seen mooy yàlla la de. bu ngeen bàyyee lii rek bu ngeen bàyyee lii rek. ngeen wér waaye cheveux yi. waaye cheveux yi. fii ak bàyyu leen ko fii ak bàyyu leen ko. du ngeen wér mukk du ngeen wér mukk. junniy faatiya junniy faatiya. du leen may aafiya du leen may aafiya ngeen di seetaan ne ñi ngeen di seetaan. ku ci tuub it ku ci tuub yi yàlla du ko nangu yàlla du ko nangu. ko wax ne moom moo ko wax. ndax la mu yàq. ndax lu mu yàq. mënu ko defar mënu ko defar. sang bi ne ne yàlla yàlla sàmmuñu. kon ne kon. léegi même boo ne léegi boo woddee wodd bu jot. wala nga def jipp wala nga def jipp te ci ginnaaw neewoo ko tereet te ko tereet ba booy dox ba booy dox noonu noonu noonu noonu dañu ne civilisé dañ na civilisé woo desal ak yàlla te desal ak yàlla te nga bañ a civilisé nga bañ a civilisé moo gën moo gën nga civilisé nga civilisé ànd ak seytaane ànd ak seytaane ñetteel bi ne ñetteel bi aaxiru zamaan aaxiru zamaan jàkka yi day bëri jàkka yi te benn du jàkka yi day bëri jàkka yi day bëri. te benn du fees te benn du fees. jàkka boo dugg jàkka boo dugg. moo gën a rafet moo gën a rafet. moromam moo gën a rafet moromam. est-ce que loolu amul. est-ce que loolu amul. te képp ku dul julli ci jàkka. te képp ku dul julli ci jàkka. bu dee bu dee buñ ko yóbbee jàkka buñ ko yóbbee jàkka. jàkka ko jàkka ne ko. fi mu jëm fu mu jëm. yàlla bu mu fa am jàmm yàlla bu mu fa am jàmm. ba muy mun ba muy mun. daaw fi ñëw daaw fi ñëw. mu tële mu tële. ngeen andi ko fi yàlla bu mu am jàmm kon ku dul dem jakk sang bi ne kon ku dul dem jakk budé budé nañ ko nañ ko ngeen mucc ci ngeen mucc ci zaman ne akhiru zaman ahkamullah ahkamullah la yalla yeb loi yalla yeb dañ koy dindi dañ koy dindi sanni serigne si tey sëriñ dañuy ne dagan na ay xef dagan na def wee lu dagan ci loolu boo jàppee wala nga sangu janaaba du yegg boo jullee junne yoon amoo julli ne na ngeen dellu ci yàlla bokk na ci bokk na ci mandarka ak xar jamaan sàcc yi ñooy doon kilifa yi ki la dàq sàcc buy ñëw ci mbooloo ñëpp jóg di ko nuyu. nekk ci kaso mooy sàcc ganaar yi. Uh-huh. Uh-huh. waaye chèque ay milliards ay milliards ñu koy détourné. bu dee tisso bu dee tisso. balaa muy naan alhamdulilah sëriñ bi mu yaakaar mooy que ne ko yarhamukallah. enveloppe bi rek la. rek la. ku la gën gën a woo costume. pickpocket la. nee xam ngeen fii pocket mhm. sang bi ne na yàlla yàlla sàmm jihaatkat yi ne jihaatkat yi ñëpp dañ leen di jéng dañ di jéng boo ne yàlla rek nee na terroriste nga même man ne même moom mii li nga ko ubbil ci dossier yàlla rek moo la ko mën a wax fu mu nekk rek ñu ngi seet ku koy jox ku may jële lu koy tabaxee ne gis na jamono yële passé ne dañ koy diaboliser sañ bambara jàpp nañ fa dorop 140 kilos anamu man ne moom bañ na ko sama dëkk bi bam ñetti kilomètres dafa ko def miir ngir yàqkat bañ faa dugg def fa gardien ñii guddi ñii bëccëg ay nit jaar ci àll ba ñu dàq leen nga foof portable am for looy coowati commissaire nee na commissaire nee na chef brigade nee na inspecteur nee na sañ nangam mu ne dëkk bi mu leen ko tilimal yàlla laabal na ko xanaa montage bu ngeen defee montage rek mënu ci dara suulaat ko ñëw jël si ko ne ki lay wutloo dërëm bi boo ko jogee te xam na moo ko jogi day dërëm bu di foñ sang bi nee na mbir baa ngi noonu ne danañu dem danañu dem. mujjug jamono jamono. njaalo njaalo. day dagan day am na dëkk ci wetu Dakar ne am na xale yu jigéen ne yi. jël ay kayit dañu jël ay kayit. mel ni kuy jaay crédit ci wetu tëli yi def ci def ci. promotion promotion. sexe sexe. wallaahi wallaahi. xale francs la. boo bëggee njaalo njagamaar 1000 francs جونغو جونغو ما خادم رسول خادم رسول فلا تد فلا تد ريو مو خامني ريو مو خامني مام الحاج عبد الله نيف الحاج عبد الله نيف فلا تد فلا تد دك بو خامني دك بو خامني شيخ الاسلام شيخ الاسلام فلا تد فلا تد الحاج مالك الحاج مالك سراج الدين سراج الدين شيخ محمد سعيد محمد سعيد ngonka waliw yi ngonka waliw yi fa ñu tëdd fa ñu tëdd ay xale yu jigéen ay xale yu jigéen jaay seen ngor jaay seen ngor jaay seen jom jaay seen jom jël ay kayit jël ay kayit bind ci bind ci promotion promotion sexe sexe ñu koy seetaan ñu koy seetaan nguur du ci wax nguur du ci wax fan lañu jëm fan lañu jëm li may Sénégal change li ne sang bi ne li may Sénégal change mooy mënoo dox vingt kilomètres ne mënoo dox vingt kilomètres bu dul nga gis bu dul nga gis bàmmeelu bàmmeelu góor yàlla góor yàlla fa tëdd bu dul loolu bu dul loolu li toj àddina li toj àddina bi lépp mu ngi fi lépp mu ngi fi nitu yàlla ñoo ñu sàmm waaye nitu yàlla ñoo ñu sàmm. yàlla bi naan yàlla yàlla taas seen bàkk. bi ci tegu ne bi ci tegu. Euh, mbaraan. mbaraan. ngay sëy. ngay sëy. di windaal ci ci mbedd bi. booy wax ak sa wax ak sa nga sa sa pour mu la. wax ak wax ak sa baat mhm. sang bi ne baaxul. borom borom. du jur doom bu baax du jur buy sagal baayam doon tiital waaye doom buy doon tiital. déedéet déedéet. doom buy tiital doom buy tiitalati rek. tiital tiital tiital tiital. tiital tiital mooy doom bu baax mooy doom bu baax. tiital tiital mooy doom bu bon. sang bi nag yàlla nañ ci yàlla mosal. te sang bi lii rek moo xew tey. ñu ngi ci mbedd yi rek. ñu ngi wandaalu. ci bureau yi rek ci bureau yi rek. da ngay set da ngay set da baax da ngay baax sa doom bu jigéen sa doom bu jigéen bu génnee rek bu génnee rek ñu jëppi la loo ci mën sa soxna sa soxna dara manqué wul bu génnee mu ngi mbaraam di naankat yi drogueman yi loo ci mën nattu yàlla ne ya allah ne sang bi say jaamaa ngi ni de bu leen gàcceel axir zaman ne axir zaman sëy sëy caaxaan lay doon ci yow comme mbaxana rek comme mbaxana la neexee nga summi nga summi. bu leen def loolu. nekk leen ay soxna. leen ay soxna. bu leen nekk. bu leen nekk ay jabar ay jabar. nekk leen. nekk leen ay borom kër ay borom kër. bu leen nekk bu leen nekkee ay jëkkër ay jëkkër. aaxir zamaan mais aaxir zamaan. góor waddu euh, góor waddu. jigéen sol tubéy sol tubéy. ngay njeegat njeegat ngay njeegat njeegat lu. doo doon tubaab mu doo doon tubaab mu. tuubaaku. tuubaaku. et tuubaxaaku la yi wax nee li la wax de tuubaaku tuubaaku e tuubaxaako e tuubaxaako jiida jiida doo doon ngay am cancer ngay am cancer sa yaram yëpp lakk sa yaram yëpp lakk pour nga nuyoo kale nga nuyoo eh, kale lu mu la gën lu mu la gën yonent bi yonent bi amoon na soxna su na soxna su amoon na doom bu am na doom bu ñuul Ismaayil Ismaayil dafa ñuuloon dafa ñuuloon Muusa dafa ñuuloon dafa Adama dafa ñuuloon ah. Adama dafa ñuuloon. Ah. d'accord ne moom moo ko wax. Adama dafa xonqaay bi lu mu la gën. xonq. xonq couleur bu yebb la. couleur bu yebb la piir piir piir piir. mooy nit ku ñuul mooy nit ku ñuul. yal na yàlla xamloo suñu bopp sang bi nee na na suñu bopp. jigéen yi ne jigéen dañuy dem dañuy dem boo ne jàkk boo ne jàkk gis sa soxna gis sa soxna da nga doon bëgg da nga doon bëgg waaye léegi boo ne jàkk waaye léegi boo ne sa soxna sa soxna da ngay tiit da ngay tiit paa yu bëri paa yu bëri ñu ngi ñu ngi damyee ñu ngi damyee eh? di carte di carte rek ñu eh? ngi poker ñu ngi poker bëlët bëlët ba deux heures du matin ba deux heures du matin nañu tëdd nañu tëdd mu ne kaay ma njol mu ne booy kaay ma njol parce que xam na bu demee kër ga li mu fa parce que xam na bu demee kër ga lan la fay fekk museur bu ñu lem ci digg museur bu lem ci digg bi neex neex nekku fa neex neex nekku fa ba grand place grand place neexul góor yi neexul góor yi de waaye jàmm lañu am waaye jàmm lañu am ci kër gi eh? bëggee di jot ci vidéo yi am njariñ yi bàyyikoo fii ci sama diine TV da ngay ñëw bés fii ñu bind sabone soo noppee nga daal di activé cloche bi mooy waral benn njariñ du la raw